Sanex daa wax sànq. Mhm. avant ñuy commencé. ne mhm. ween dafa am solo. dëgg la muy meew. Mhm. te it sallallahu wax ni ku bëgg ngërëmu yàlla. waxul ne jullee la koy may de. waxul woor waxul aj màkk waxul natt asaka. daf ne doom ju bëgg ngërëmu yàlla. na ko ut ci ndeyam ak baayam ku ku bëgg ngërëmal yàlla yàlla wër ko ci say waajur na ko wër ci say waajur fi ridal waalidin wa suxtu laa fi suxtil waalidin est képp ku sa ñaari waajur gërëm hmm. yàlla gërëm la ku sa ñaari waajur mere. Mhm. yàlla pare na ci yow. est-ce moom kay. maa la ko am seen ngërëm lu tax. Mhm. parce que bi mu lay wàcc ci suuf gis na ñëpp. Mhm. mu tànn ñi mu la booleel. wallaahi. Sanex ëmb dafa métti. Ah, juróom-ñeenti weer. am na beneen bu ko gën a garab. muy ban. li ci seru yaay. dooma tax mo nawleem gis ko. li li yaay li yaay woddoo. Mm-hmm. Mm-hmm. doom bii judd. Mm-hmm. moo tax nawle yaay gis li ci seen mooy rawle rewle ga ndeysaan ndeysaan bu dul loon juddu xale bi. kenn du gis yaay ji li mu woddoo. wallaahi ndeysaan. wallaahi. kooku bu bégul yàlla du bég. dëgg la. waaye suñu jamono jii ñu gis ne léegi boole bari na si ndaw ñi ñu xam ne joxatuñu cër seen way yi. chaque jour presse bi bind ko. wallaay diw dóor na yaayam. diw yóbbu na yaayam police diw ah, mhm. def na lii oustaz noo jàngalee jàngate si loolu. xam nga xaaj góor Cheikh. Mhm. dafa am lu nu yàlla waxoon. Mhm. ci diggante way dencante. daf ne saaneex mi defar boppam. ba yëg ni ni mu mel neex na ko. na wuti jigéen ju mel noonu. maanaam. ku ne daal maanaam ci ni ma ko jàngatee ku ne na ànd ak ka mu ànd ok waaw parce que cheikh bu yiwee takk ku yiwadi fitna la koy jural dëgg la moo tax alquran ni buur gu yiw nañ ko may jigéen bonata allah xaale googo kon dafa ustaas nag wax ne al baladu tayib

comme ni ngay amee sa xar ni ma koy misaale léeg-léeg soo amoon tey laadum bu góor bu ko boole kurkur kii am laadum bu jigéen su demee ba soxla ci moom doom danaan la dama bëggoon sa xar mi tëbul ma sama xar mi dëgg la moo na romb na xar yu bari yu doon góor waaw mais amuñu race bi mu soxla la euh, jàngat jàngatañu foofu léegi nag mu jël euh, euh, laadumam bu jigéen mhm. te kaay ma wax la laadum boobu nga gis bu alaaji góore bi pour mu tëb bu cheikh il faut mu fay ko cinquante mille waaw dañuy fay dañuy fay ndoxu xar laa de cinquante mille dañuy fay cinquante mille. pour dëggal li nga wax xar un. allemand yi ba ñu bëggee race bu baax. waaw dañoo jël fële booleeg seen xeet bu croisé leen. allemand yi dëgg la xeet yu njool ca kaw ñu am doole. léegi nag li tax ñu boolee laadum bu góor ak bu jigéen. waaw du góor bee leen ñor de. du jigéen bi. doom ja doom ji la ñuy waajal. doom ja doom ja. dégg naa waa léegi léegi. dégg naa dégg waaw dama yàlla baal ci ci ci kàllaama ji koo xam ne daal ak caay-caay moo nekk ci moom. Hmm. ndax possible na buñ ko mayee jigéen cu saay-saay gu mel ni moom lan lan lan la mën a indi. ok alxuraan wax na ko. daf ne at baatu waaw bii la xam nga amoon na fi émission yu fi amoon. ñu ñaan ko ustaas ñu di ci wax. ñu naan yàlla nee na jigéen mën nañ koo dóor mën nga bàcc bàcc rek. ah man da ànduma ci loolu. alxuraan waxewul noonu. Hmm. yàlla def ne ak tayibaatu li tayibiin jigéen ju yiw nañ ko utal góor gu yiw waaw mm-hmm. wa tayiboona li tayibaat mm-hmm. góor gu yiw nañ ko may jigéen ju yiw Cheikh ma laaj la mm. ndax ku yiw dana dóor mukk ku yiw du dóor mm. ndax ku yiw danañ ko dóor mm. duñ ko dóor boo duggee nag ca aaya ba da fay génne fadri boohun na dugal fa farisuhun na yàlla nee na yedd rek la moom mais moomul yàlla. Hmm. jigéen daal yedd rek ju yiw. dañ koy yedd daal boo ko yedd bu ko kenn seede yow ak moom bu ngeen demee bay tëdd nga ne ko soxna si bëggoon naa ñu waxtaan tey bi fi saaneex ndogu see ak alaaji góora ak baro wax dëgg yàlla ni nga tëgee ndogu li ba ñeex mi fi tax naa ci hmm. ne la wallaay damaa juum hmm. damaa juum waaye dootul am baal na bu dee mooy wax damaa juum ku yiw laa mooy baal yiw mais nag mais nag oustaz ndax góor ñi góor góor dafa mën a wor de ah, hmm. góor ay gis jigéen saa déglu ah. waaw xam nga boobu père booboo war a ànd waaw jigéen ju yiw góor am na beneen fu alquran waxaat waaw alxabisaatu lil xabisiin wal xabisuuna lil xabisaat hmm. sunu borom nee na hmm. suñu bu dee góor gu jigéen ju wëyu waaw nañ ko may góor gu bandi waaw wëyu bandee baayam ku nekk ak genre am pour lan suñu borom nag nee na ñaar ñooñu waaw suñu àndee ndaw si day doxee ba une heure waaw góor gi ñëw deux heures waaw doom ji ñëw di tëdd cinq heures du matin ci kër gi mhm. bu nu xuloo muy indi fadri boo woon na cooki ba bët set <laughs> waaw léegi léegi ñooñu ban chance la ñu am pour ñoom pour am jëkkër ah jéegoo ko de xam nga bool boo gis am na ko biir Ah, dëgg la. <laughs> bool boo gis am na kubéer. waaw ci lu nekk ak la koy saf. <laughs> waaw te kaay ma wax la gis nga ku ku wuyu. Hmm. soo ko mayee jigéen ju yiw du hmm. yàgg. du yàgg parce que la muy bëgg a séqee ak moom. Hmm. ak bëgg koo dundee ak moom. ndaw su du ko àttan. parce que wuyu la. góor gu yiw it boo ko mayee jigéen ju yiwa ji duñ mën a yàgg. parce que laaj góor danaan kii saa neex dimbale ma rek yaa Cheikh kii mënuñ def. waaw duñ yàgg. parce que li may dund dund ko li ma gëm gëmu ko bàyyi ma rek ma yeeyu waaye bu li alaaji góor di dund. ndaw si di ko dund. suñ leen boolee ñoom ñaar. Mm. doo àtte Cheikh du àtte. dëgg boo gis amul problème. Mm. dañoo bokk principe. Ah, ah. dañoo jikko. Mm-hmm. waaye bépp couple bu bokkul principe. Mm. bu dee sëy ba yàgg na it ci tolof tolof lay wéy moo tax yàlla bëgg ñu tànn ko yiw ci góor may ko ku yiw ci jigéen yiw nag du njàng lan la jàng téere yi nii du tuus loolu njàng la rek yiw lan la yiw jikko la ak meem jikko ji fu muy jógee jukko jaa ngi jógee ci meew c'est très important waaye ba kontaan waay dama lay meew c'est très important lu tax xar mel ni mu mel lu tax bëy mel ni mu mel mm. lu tax nag mel ni mu mel lu tax nit mel ni mu mel meew mi ci dënnu yaay mm. ci la ñuy génnee xel te xel ci la ñuy génnee jikko mi ci dënnu yaay la ñuy génnee xel moo tax nga yor xelu nit suñ la joxee kaas bi nga xool su dee lekk nga fóon bu foroxee nga bàyyi baa ngi ni ni ñam bu foroxee nga bàyyi. boobu xel la. loolu xel moo koy liggéey su dee bàyyi ma day ñëw roof gémmiñ gi lekk. dëgg la. moo tax meew am solo. jigéen ñu bëri. dañuy ut ay biberon di ko nàmpal seen doom. nàmpal biberon nag meew lu mën a doon. xale bi jikko jooju la yore. waaw. Samb dégg nga loolu de. léeg nga gis xale bu turpi mel ni bëy. mu naan ci nga romb ay nit doo leen sa moromu baay doo yi noonu la ñuy def sa baay doo ko nuyu. sa moromu yaay doo ko nuyu. Mhm. soo dalee ci ko bi mu ne yow xale bi lii nga ne ko père jéggulu de. nii. waaw. Ah. dem sa yoon. gaaw a dee rek. dox ba mu neex la nga dindi sa tubóy taxaw di tuur ndox comme comme doo nit. mala yaa koy def. mala yee def loolu dëgg la. loolu li koy indi nag. li nga nàmp la. ak ah, xam nga ban oustaz. ban sëy ci mbedd yi. fan waaw. fu mu leen neexee la ñuy sëyee léegi. am na da ko bëgg fu mu leen safee rek. léegi sax kii la nu tudd. vice euh, vice la vice la. vice koo def yëfi gër nga Cheikh. waaw léegi kii. Ah, dëgg la wax na dëgg. yëfu waaye dañoo war a bàyyi xel leen. muy suñu borom nee na benn nit bu yàqu. Mm. jàppal ne monde bu yàqu la. la ilaha illallah. la preuve aadama rek la woon ñu génn ci xawa ñuy jurante ba monde bi di riir kon benn nit bu yàqu peuple bu yàqu au lieu nga ut ay doom utal nawle doom yomb na mango goo dem am na ko papa am nañ doom mais nawle moo yombul luy nawle jabar ca nawle luy nawle nawle mooy ni nga mel nga jur ca ko ni mel am na doom joo xam ne tey bu baayam deewoon xalaatul këram xalaatul alalam mu ngay xalaat la bàyyi def ba ba fi kër gi danaa def lu ni mel ba am kër waaye léegi mais oustaz loolay naw oustaz man dafa am lu nga xam damay laajte parce que saa wax na ko léegi ci biir waxam ndax vice ci doomu aadama dafa garaaw am na ñu nga xam ne dañoo am viisu jigéenu mbedd am na ñu xam ne dañoo am viisu def ay mbir ci mbedd am na ñu xam ne dañoo am viisu di dóore dóor am na jigéen yoo xam ne dañ naan ki dóor la ñuy gën a bëgg ki leen dóorul dégg nga am na jigéen yoo wax viis yooyu damaa def ne yàllaa koy def ci doomu aadama wala doomu aadama moo koy cultiver ci boppam déedéet euh, cheikh yàlla du ko def mhm. sàgganee njëmbat la léegi-léeg nga fekk garab goo xam ne dundul deewul mhm. Mhm. bañ ko jëmbatee lañ ko sàgganee Cheikh doom nawle la mhm. te doom dafa foor mhm. soo ko juree li tax sallallahu alayhi wa sallam wax ne kullukum raa'in mhm. wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kenn ku nekk ci yéen muy yow Saneex muy Iran muy alaaj Góora muy Cheikh muy Baro ku ci njaboot ga nga am sàmm nga ci waxtu woo demee waxtu woo demee ba xale bi ruur mooy def li Saneex wax mu ngay sëy ca mbedd wala ji jigéenu mbedd ko neex donte mu ngaa ñeenti jabar wala ñetti jabar jaay ak bàndee ko gënal xam nga lu tax dama la waxoon ne ne ki jikkoom baaxul ko may ku yiw am na ñoo xam ni waaw euh, seen yaay wala seen i wayjur baaxul ñu ditu ñu dudd doon fa exemple ñu dudd baax fa lool ah, ah. Ah. Euh, dafay am sew sew bu ci ne kay dafa am sew sew bu ci rek. ji nga mbaaxu jigéen. du ëtt du pénc du mbedd biir néeg la. est-ce hmm, néeg la tàmbali biir dox ci mbedd daje nit ak sagaram bu la jegee nga daw. ci lu wax yàlla mu def ko. dëgg la. nga gis ko sañ sañse nit ci télé bii di wax. Hmm. ti moo gën a bon iblis. <laughs> Hmm. fuuf. te boo gisee yërem naw. te iblis mi ñuy daw di ko moytu mu yàqal sunu maam aadama kii ko gën a yées hmm. ngay daw kële yow yow nga di ko daw te ki ngay daw moo tane ki nga ki nga gëm mbaaxu jigéen biir néeg hmm. biir néeg muy jur sang ci biti